Tidiane xalifaay lampum ngor mboolem Sénégal leer yaa ngay wëndeelu lool la yàlla def bay min tiit max naa woo mooy docteur bi waalay yéen Tidiane Tidiane yi wagu lañu luy seen wërsëg nañu ko xaar ci raay bi